yéete ak sëtub Kocc Barma yéen ñi ko doon laaj kon moo ngi ni génn na 3500 dong lay jar di livre à nga xam ne lu yam la ndaw xaj ci loxo xaj ci poos foo jëm mën ko yóbbaale fees ak njariñi kese kaajarug bindkat gi moo nekk nii bindkat bi muy auteur bi di wax ni man la sët ba donn maam xeltukat ba xintu daam di góor sa jomba jaamu kudul boroomam fii mu ngi leeral lenn ci jaar-jaari Kocc Barma muy biographie yu Kocc Barma mi nga xam ni moom lañ jëmmale yete gi muy roman bi ci boppam fii Kocc Barma Fall mu ni bii xeltukat mu ngi gane àdduna ci atum junni juróomi téeméer juróom ñett fukk ak juróom benn ci njonge faal ca kajoor turam dëgg di birima xureja demba xulle faal di doom ci ma xureja faal ba ni mu jeexe fii bam naa ak dikkam dafa daje woon wala daje woon na ak jamono joo xam ne buur bii woon juróom benneelu dammeel doon jalgati àqi nit bu nu demee ci kubbiteli ma ngi wax naan yéen sama doomi réew lay waxal ak képp ku ma bokkal kembaruk Afrique man moom bér na ma ne kenn nuutuma te na xiifuma loolu tax ndegam xam naa ne ñi ëpp ci yéen ay saa Sénégal lañu te làkk wii di wolof lañu dégg dinaa ci làkkante ak yéen wax leen lu nopp mëna a dégg téere bi jàppandi na Cees Touba jëm na itam dakaar ku bëgg rekk su fekkente ni jot nga Ali Bangar wala Mayeri Fall bu ëgsee di bokk ci ñi njëkk a jot ndem som na borom bi dongu lay jar nekk na téere bu yam te xaj ci poos fii mu ni te ndox tuuru na ci sababu tooñ kat ba tubaab te ci tooñaangeem googu lañu ñàkkee lu ëpp ci lu nu amoon ak lu bari ci sunu moomeel yi ñu donde woon ci sunuy maam di am koom aada ak mbatit ci pénco gi mu ni yéen samay ñoñ man mi maa leen wóolu woon ngir nu pénco ndaxte ak lu man di am doomi sunu réew mii di Sénégal ngeen te muy génn kër di benn ëtt ñu koy fekk ci bayaalub Afrique ndem menn penc la dem ba ni jox ma am tama xayna tungtung rungtung danu xumbalum kiiw waaye maam Kocc Barma nee woon kiiw mu tama xumbal yaram wu tas tas ko te kiiw mu yaram wu tas tas yandoor samp fam néeg melow gaynde ga la melale njàmbaarug yooyu yëli maam ak seen fit yu rëy ya ak gorga ak ngorga guy gu rëy gañu fi jëmbatoon te maam Kocc Barma Fall daan fa toog di amali wëpp ak aka yeete falaani dojj toog ferankulaayu ci kaw tooj nde moom guy moomu garab la goo xam ne keram daa sedd ba mel ni bi yéen yéen ñi di ay xale ak waxambaane danaa wax ak yéen ndi ci yéen laay doore sax lu tax loolu ndaxte yéen ngi war a jéggi xurwu lëndëm ci àdduna te xat ngir mën a dund te yéen ngi doora tàbbi ci biiram ginnaaw ba ngeen bawoo ci àdduna bu gëna xat te muy seen biiri ndey wàcc ngeen ci àdduna bu gën yaatu waaye dañi tëruus man moom duma leen nëbbal gënn lay biire ko war a dox sama diggante ak yéen waxambaane yàgg naa réer ci màndiŋ mu rëy nii ngir barik ay ndëgg sërëx ak i pax yu koy fakkastal ci ay garab wër ko ak i xàll yu bawoo fu ne te bañante gi ñu fi indi danoo gëmloo ne loolu lañu war a dund te dara du ci dëkk lu ñu wax rekk la ci kaw suul ko ci suuf ku yàlla di xontu kenn mënu koo xiifal ku yàlla di wettali ñàkk ngoom naan du ko taxawet kon dara du dara lu dul yàlla moo fi nekkoon ba dara amul woon te moo fi des bu ñépp seyee ba jeex kenn deful kenn dara waaye kenn deful kenn dara lu waaye def boppam te yàlla gëmmul nelawut te du tooñ dina maye nag waaye du fay nit lu mu leblewul woon ku bari yërmande la lool waaye dina duma yow mi doon dawal benn benn yii cant ñel na la ak ngërëm